fu muy fanaan ak kuy wut ku ko wétali xanaa delloo buntu gi waru leen a boole Yafatus Guest House tijjil na leen buntu bi ñu leen fa am ak ñaari cabinet saal yu yaañña amal leen li nga xamante ne mooy cabinet ak saal ñu ngi leen amal AC ak fan saal bi nag lépp li ngeen soxla am na fa sofa yu nooy ñoo fa nekk TV baa ngi fa cabinet boo dugga lal yu nooy leen leen fa amal amal nañ leen fa AC ak li nga xam ne moom mooy faan toilette yu set wëcc amal nañ leen fa kitchen microwave fridge beneen bu baax dama ne teraanga day mut moo tax taxit Yavaatous Guest House amal leen extra kitchen lépp lu ngeen bëgg a togg mun ngeen ko toggee si gaas ku bii biinee kuy xalam di si jaayu nag barke bi yaay borom amal ne li nga xamante ne mooy ndox ak courant 24 bu leen tiit bu leen ragal bu leen xoof ndax amal ne lii di CCTV caméra seet si leen ñu si Farafenni gannaaw garage yi base bi Kawur highway very clean every day am na cleaning service amul fenn Jaafatus Guest House teraanga àdduna bët kon nag seet si leen ñu. suba ba léegi maa ngi wër mënu maa jot xaalis. jeex na dama ne noppil coono jeex na. Hmm. jooy jeex na frustration jeex na. ak Africa Financial Service. coono jeex na dugal si biir am sa smile bu bari amuloo benn kiw ay smile eesi bu mu sëkk si sa body kon nag demal kon baax na xaaral ma tëraay afia rek ñu ngi fii nag si Gambia si 33 branches si biir réew mi foo mën a xalaat si biir Gambia ñu ngi fa am suñu place koo na boo dem ñu ngi fa afia mu ngi transfert ñu ngi lëkkaloo nag ak social services yu bari fii si biir dëkk bi xaalis boo mun a am si foo ko mun a amee ak ku la ko mun a yónnee ñëwal si Afia ñu jox la ko weccum xaalis nag dawal ba mu jeex kon nag mbokk yi xool lañ ñu si suñu namba bi 3062870 mbete it 2020381 ñun nag ñu ngi fi nga xam ne mooy pipeline mos bi opposite am foofu la ak Afia seen jaale jema ngekonta abaraka abaraka muna membe kerim babu wolom aka kenu ni ko aka kenu nyameng nuntu adol be nyadile parce que ni amoy ko aɗo nen cosano ka haɗa maddigol e signifie itemu jumalete ite bota jumalle bala wol fanal bota jumalle fanal bala na lan dekkil sa ada asa cosan ak ko nun ñami num nan amé dem babu ko ni dinnigo jiibe iko aka lon ko yemmen fo xama sa ada asa cosan mota gambian tren tv ak ibu ak babu ñu tok ñu ne ñu fokk ñu dunda sun azazdi asun cosan tuntu alfal ke la dim dimbayali ke kunu no nyaadi ñaadile ke kunu nyaadi le fo bu tero lo bang fo ɗum i ka domoro le di la ban foyi ka mun fɛn le di la nin programme le bi o bɛɛ sɛnɛyandi la kon kene kunega bo buke hamsa adresse cosan funga baye ko samma funga baye ko nun to alfa lu ila sunkurundiŋol i kee pare ñaadi le ila dum feŋol fanal be ñaadi le ko mun dum feŋ siifal le fanal dum nin programme le fana be o yitandi la nenarani ko watti sa ande anni woɗon ngafteggo fofam tel dindi mankaje kebal ka julo siti yiro balay ka fo finja julo gay koye ɓe siring eɓe kuŋo jiija allah kumol bita ɓe taarikol fola dindigol ye lu doon am démba lu tax amatul tey la moo tax topp suñu nasaraan fàtte suñu aada ak cosaan ake kenn ñaameng aada ak cosaan ake kenn ñaameng toppal lañu alxames bu jot juróomi waxtu ba juróom ñaari waxtu fan la mooy amee si Gambian Talents TV Ibou la ak Babou asalaamaaleykum mbokk yi nuyu naa leen ku nekk sa tur ak sa sant di leen jaajëfal saa su nekk fii si Gambian Talents TV uh, di leen dalalaat si beneen diggante show every Tuesday fii si Gambian Talents ngeen ànd see oustaz oustaz Arman Sori ak uh, Aida Kebe fii si biir kër bi ñu nar a waxtaanee topic yi am solo um, dama koy wax saa su nekk mag baax na suñ biir su ko defee mu mun ñoo ginnandi su ko defee mu mun ñoo wan yoon wi waaye uh, waxtaan wi am solo ba nga xam ne ni ding si jàngee dinaa si jàngee uh, ni ma koy waxee saa su nekk diggante show ñëw fii pour um, jagar diggante pour waxtaanee diggante yi diggante waajur diggante jëkkër ak jabar waaye diggante nit ak morom ka parce que am na solo bu baax a baax a baax ñu koy waxtaanee su ko defee ni ñu mun koo jàng kaaraange si suñu biir eh, ndaxte jamono ñu toll nii den toll si jamono joo xam ne nii foog ñuy fàttaliku wante eh, li nga xam ne ni moom mooy diine ji waaye li nga xamante ne ni moom mooy yoon bu jub bi su ko defee eh, ndaw ñi di ñëw mun a xam fi ñuy teg seen tànk bala maa sori si biir tey ñu nar a waxtaanee topic bu am solo bala ma koy fesal ma daal di bàyyi oustaz Al Mansouri mu nuyu wanteeg askan wi oustaz asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatuhu soxna Aida maa ngi lay eh, fay di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñi nga xam ne ñooy seetaan diggante show muy bàyyi ko fii ci Gambian Talent TV di ñaan yàlla yal na yàlla eh, jullit ñi ci sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di gërëm nag sunu borom tabaraka wa taala mi ñu dajalewaat fii di ñaanal jàmm ñëpp yal na yàlla saxal jàmm ci réew mi te yokk ko bi jaahi mawlaana muhammadin sallallahu alayhi wa salaam Aida maa ngi lay nuyu di la ziar delloowaat la kàddu gi. di delloo ziar euh, di leen dalalaat euh, fii si biir kër gi tey nag euh, si diggante show bi dinañ waxtaanee li nga xamante ne nii moom mooy àqu njureel àqu njureel nag boo ko déggee. Euh, sa xel dina dem si àqu waayjur euh, waaye it waayjur nekk loo xamante ne ni um, lu foor la te it um, waayjur nekk loo xamante ne ni uh, lu mat a bàyyi xel la sa digganteeg say waajur lu mat a defaraat la uh, parce que um, waayjur most of the times de wax ne ne uh, yow doom bi nen nga waayjur di doj boo dalee si kawam toj bu dalee sa kaw toj kon nag sa digganteeg say waay waayjur l'islam daf ko spécifié maanaam indi si aaya yoo xamante ne ni Euh, yàlla dafa euh, guide nit ñi wan leen naka leen war a dundee seeni waayjur euh, te it xam naka la ñuy toppatoowee seeni waayjur loolu am na solo torop si diggante waayjur ak ki nga xamante ne ni moom mooy doom ja waaye it du ma def dara laajte oustaz Almansouri lislaam nan la wax si àqu waayjur waaw jërëjëf Aida ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm yàlla sunu borom tabaraka wa taala daf ñu diggal ne nañ ko jaamu واعبدوا الله ولا tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan yàlla daf ñu digal pour ñu jaamu ko te it wax nañu feneen ne moo tax mu mu mu bindu ñu wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni maanaam lii ñi fi def ni yëpp li ci gën a am solo mooy ñu bàyyi xel ne ay jaam lañ te jaam jaamoo ko war moo tax yàlla indi déclaration bi wane ne li tax ma bind leen mooy pour ngeen jaamu ma léegi nag Eh, wa xadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyaahu daf ci tegal wa bil walidayni ihsaanan mhm. beneen yoon wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsaanan mhm. maanaam eh, yàllaa ngi farataal na ci ñu jaamuñ mhm. waaye daf ci tegaat beneen beneen santaane mooy ñu rafetal jëmee ci wajur yi rafetal nag lépp nu lépp maanam num lépp nu mu gën a mën a rafetee rek day gën a baax nu mu mën a rafetee rek day gën a baax ci wajur yi moo tax Euh, ayda ci jamono jii ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne lii wane ne jamono ngi jeex si bokk na ci mooy bëri uquuq kasratul uquuq xam nga al xuquuq ak al uquuq du benn al uquuq mooy doom ji muy mooy way juróom al xuquuq mooy xaq yi dox ci diggante doom ji ak way xaq yi dox ci diggante keneen ak keneen hmm. loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi jàngal nañu doom ay way juróom dafay xañ boppam aljanna du yàlla ko koy xañ parce que yàlla pour mu gërëm nit ki dafay jaar ci ngërmandel way juri bu loo mën a a jaamu yàlla mhm. te yàlla gërëmut la te say wayjur gërëmuñ la mhm. su fekkee say wayjur ñu ngi ci yoon bi ci yoon bi siraatal mustaqim mhm. yow nga ne ci yoon bi waaye yow faale woo sa wayjur yaa ngi jubal yaa ngi sellal yàlla nee na du ma nangu ak lu mu baax baax du ko nangu moo tax yàlla dafa bëgg nit ki di jaamu yàlla direct maanaam direct diggante ma boromam waaye di jaamu yàlla ci way juróom itam nit day jaamu yàlla ci way juróom moo tax ci biir waxtaan wi danañ indi li ñuy wax fiqhul birr fiqhul birr ay ay point laa ko laa ci indi xam naa yëpp duñ ko mën a andi waaye danañ ci indi yennat euh, bokk na ci yooyule nga gis ni ni mu amee solo xam nga am na ñoo xam ne danañuy def lu baax dañuy defal seen way jur yi lu baax mhm. waaye fiqhul bir day ñëw gën a encouragé doom ji mu gën a baaxal mathalan li benn borom xam-xam wax ki ñuy wax Yazid ibnu Habib ibnu Abi Habib mu ne bokk na ci fiqhul bir maanaam nga fexe ba jéem a understand li ñuy wax baaxee sa jur mhm. bu fekkee am nga understanding bi mu ne da ngay fexe ba dootoo weranteeg sa wayjur yi pour di am li am dëgg ci seen kaw Mm-hmm. donte yow yaa am dëgg doo weranteeg sa yaay ak sa baay pour di am dëgg ci seen kaw. Mm-hmm. moo tax euh, mu wax ne bokk na ci fiqhul biir nit ki di ut dëgg ci kaw waajuram mu ne loolu uquuq la te uquuq moom laa la wax ne la yonent bi dafa ne doom ji mooy ay waajuram du dugg aljanna te di fexe di am dëgg ci sa kaw waajur euh, borom xam-xam yi ne nañ bokkut ci fiqhul bir donte ka yaa am dëgg. Mm-hmm. dool nag firndeelu ne soo su sa waajur yi buggee nga mooy yàlla déet foofu doo ko nangu mm-hmm. moo tax mos nañoo laaj eh, Seydina Al eh, ci benn góor ne waaw koo xam ne waajuram daf ko wax ne ko dogal koor dogal koor gi maanaam yaayam dafa ñëw ne ko dogal sa koor gi mm-hmm. nga gis maanaam li li tax ma ubbee fi waxtaan pour ni ñi xam néew bi waajur toll ñu mm-hmm. doog a ñëw ci waxtaan wi ay ak nga koor koor gi nag maa ngi ci miin wooru naa fi nga woor mhm. sa yaay ñëw ne la dogal sa koor gi nga bañ doo am tiyaabo boo wooree ba ngoon sa yaay la fay dégg nga bu baax li mhm. maanaam ngay naafi la woor sa yaay ñëw ne la dogal naafi la gi dogal koor gi danga nga war a dog koor gi te doo ko wooraat te danga nga am tiyaabo koor eh, dafa am ku ñuy wax juray ju ju dafa nekkoon jaamukatu yàlla jaamukatu yàlla bu mag boo xam ne mhm. dafa mujjoon génn dëkk ba dem samp benn comme seen diine ja ñoom samp benn jàkkaam boo xam ne foofu lay wéet di jaamu yàlla mhm. loolu la mujjoon di di jaamu yàlla di jaamu léegi nag benn bés muy muy muy muy jaamu yàlla comme mën nga ko tuddee julli naa fi la masalan pour mu gën a neex a dégg mhm. jaamu yàlla goo xam ne boo ko commencé doo wax comme julli xam nga boo xasee commencé julli gi nañ la boo waxee da nga yàq julli gi loolu wax joo xam ne da ngay xeetali nit dégg ñëw woo ko fekk commencé na kàbbar jurey joo wuyoo ko mu ne yàlla sama yaay julli gi daal di continuer ci ëllëg sa yaay ji ñëwaat woo ko même heure bi fekkaat mu ngi naafi la ji ne jurey joo wuyuwut ko yàlla ah, sama yaay ak may woote de waaye maa ngi jaamu yàlla laay jaamu mu continuer ñetteelu yoon ba yaay ji tombe muy jaamu yàlla yaay ji woo ko mu fekk mu ngi julli uyuwu ko yaayam ne ko maa lay woo ñetti yoon saa yu ma ñëwee soxla di la woo uyuwu ma yal na la yàlla booleeg jigéen ju bon mm-hmm. moo tax danañ ci ñëw bu ñu ba ci wayjur yi mm-hmm. liñ war a jox mm-hmm. doom itam wayjur bu muy gaaw a ñaan yàlla doom waaw boo xuma la yal na nga dee te bu dee yow yaay yóoxu bu dee yaay ñàkk sa doom def lu la na nga dee yow nga dee sax moom a gën yal na nga torox yal na nga kasaara xam nga alxasaaratu mooy koo xam ne torox na lum laal mu yàqu yal na nga kasaara xam nga kasaara olof moo yàq baat bi waaye moo di alxasaaratu xasaaratu nag mooy koo xam ne dootul tonaw dootul am barke lum am mu dem moo tax am na ko xam ne dana dem ci sëriñ mi ne ko ñaanal ma yàlla ma lu ma am mu dem fekk yaay ma ko ñaanal ne ko yàlla nga kasaara bi muy xale ñaan gi nangu léegi moom bi mu ñaanee doom jaan ñaanee yàlla doom ñu ne ko yàlla na yàlla booleek jigéen ju bon après ay at fàtte nañ moom fàtte na ñaanu yaay ji mu continue diggante mag yaay ji dara newu ci lu dul jàmm yaay ji naw ko ci jàmm yàlla bi yaay ji kontaan na ne yàlla may na ma doom joo xam ne mhm. nii la baaxee wallu yu la jaamukatu yàlla jaamukatu yàlla benn bés benn jigéen ca dëkk ba mhm. dal di defaru jigéen ji ni ko yàlla bindee yaa ngi may dégg jigéen ji yàlla daf ko sedd taar mm-hmm. waaye daf daan liggéey ci taaram boobu daf daan liggéey ci taaram boobu boobu yonent yàlla Muhammad moo ñu nettali histoire waaye boobu yonent bi juddoo juddoo gu jege gu ta feeñ kon nga yëg ne bu ñu demee ba jamono jigéen di liggéeyaat ci taaram démb moo ñëwaat tey mm-hmm. jigéen ji day liggéey ci taaram mu dal di defaru ba jekk ci bés boobu bés boobu moom ni mu taaroo pour moom mos te rafetee noonu léegi nag borom barke yi ne ci dëkk bi yëpp daaneel na la ku nekk am na am na yow affaire kenn ñemewut a moom daal mooy ciif ci dëkk bi. waaw gis nga moo tax am na ñoo xam ne suñ amee kees ci àtteekaay ba. Mm-hmm. doole rek kenn du leen gaaw at ndax day fekk ñeleen war a àtte mhm. jaar nanoog ñoom foo xam ne mhm. la jekku nañ leen dégg nga mhm. benn bés bés boobu le mu defaru ayda bi mu taxawee ci gangam gi am na gang nag ay jigéen joo gis mu song kilifa daaneel ko rek am na góor ñu nekk ci gannaawam di ko kii di jàppale mu defaru ba jekk dem ci góor ñi góor ñu ñu gangam gi ne leen tey kenn ngeen foog na ci dëkk bi ban hmm. ponkal ngeen foog ne ci dëkk bi mënuma ko daaneel gaa yi ne ko dëkk bi ponkal yëpp daane nga ñaan mm-hmm. kenn rek nga mën a lool dara te jarut nga de ko tees mu ne leen kan ñu ne ko juray ju góoru yàlla ki wëllu bi ponkal mi mu ne leen dinaa ko daaneel tey bul fàtte ni moom la yaay ji ñaanaloon mm-hmm. nee na nga am jigéen ju waaw yàlla na nga jigéen ju bon juray ñëw fekk ci jaamokaay góor gi jigéen ñi ñëw ci jaamokaay yàllam bi fëgg ba mu ubbi bi muy dégg kàcc ci palanteer bi rek jigéen ji génnee kaala ki génne lifin bi rek pour ko taar bi melokaanam جلوی جو قول کرے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دل تجار کرن تے جیگن جی نک چی دیو کو یاما تخجو یاما تری نلو یاما نانگم یاما نانگم خم گا بولا بگے جاپ موم تبارک اللہ واو من یولا بگ بلای استاد سواری نی مای دف نکتے یو نینگ لای گسال کامبو گو خنے کامبو گو خمنے ہاں سواری نی مای دف نانگم نانگم تلیگو امنا جامنو بوانا بولا وو اچرا جبنا لسواری نی مای دف لای فیک بینو ولا نیار گورو نیک kooku ne ko yow sa waa waaree da koo neex mhm. mu tax waxkatu diine yëpp nañ bàyyi xel mhm, léegi xam nga féel na amul li mu bëggoon gi mhm. tëjaat na buntam bi nekk dellu ci boromam mu geestu rek gis benn sàmm buy sàmm foofu ci ko ci gott parce que góor gi jàmmu ko yàlla mi ci àll bi la nekk mu dem dal di fexeel sàmm bi wan ko ay kii ba sàmm bi xelam ne ci moom mu jox boppam sàmm bi sàmm bi ànd ak moom mu jëlee ci ëmb bim démé ci gaay yi leen li mu loon waxoon ko lan mu né leen amna ko te bi yoon dama leen bëgg wan firndeel firnde mooy daanu ma nangoo jël ëmb dama daan naan garab bu may and ak gaay way bi yoon dama bayyi non parce que dama bëgg a ëmb pour daanel sëriñ bi mako bëgg daanel gis nga da lool bokku ci topic bi ko gis muy liggéeyal yalla mm-hmm. amna téméré shayatin ay ay thousand ci ay seytaane nit ak jinne mhm. ñoo xam ne li leen tere nelaw mooy nañ ko daaneel léegi mu ne leen li sax man li ma yëg mooy ne danaa ci jëlee ëmb incha allah danaa ci jëlee ëmb incha allah moom maa ko ci parce que ñoom seen caay-caay googu mhm. dañ ca teg incha allah ah, mu daal di jël ëmb waaye wax na ñëpp ne leen sëriñ bee mu ëmbal léegi ayda kan mooy mën a seetal sëriñ bi kan mooy mën a seetal sëriñ bi kenn mhm. am na ñoo xam ne tuuma bu xasee toq seen nopp yi gëm nañ ko boo weddee dootuñ ko gëm mhm. duñ gëm weddi moo tax tuuma dafa bokk ci bàkkaar yi gën a ngand tuuma mhm. tuumal nit ay da gis nga jooj meenu yàlla bu fekkoon ne dana dana garaaw dana maanaam dana jël taayam tuuma moo ci gën a yàgg jotaay tuumal nit te dafa xew nag bu baax sax dafa bu baax sax lii ndaw si def ci jamono ji bëri nañu koy def mm-hmm. dem bàyyee seen bopp keneen mu ëmbaleen ñu ne diw ak leneen parce que bëgg nañoo lekk xaalis diw mm-hmm. wala bëgg nañoo yàq turam wala bañoo bëgg nañoo yàq turam mm-hmm. ñu ne nangam moo tax euh, ci jamono bi nit ki war nay uttam mbirum ngànnaayu baatin da yonente waxoon ne adduwaa u silaaxul mu'min ngan ñaan mooy ngànnaayal jullit ba nga xam ne yenn yi buñ la ko namee def li ñuy wax raddu niya waxuma wax la waaye buñ la yéenee lu bon rek mu dellu ci ñoo xam nga loolu am na ci alquran alxuraan am na loo xam ne boo ko bindee sangoo bu la nit yéene lu bon mu dellu ci moom xamoon nga loolu. alxuraan kay lu ne nga si. am na loo xam ne boo ko bindee ci alxuraan ay yëpp boo ko bindee boole ko nangam sangoo ko fu la nit yéenee lu bon ayda day dellu ci moom waxuma la nag bu la defee lu bon day dellu ci moom. Hmm, te mag ñi ndeysaan ñu baax lañ gis nga boo koy boo koy jëfandikoo. day am xalu safara day am puso puso yi mag ñi dañ la ne bu ko bu ko tëral day ko samp ndax boo ko tëralee suul ko ku la def lu bon day dee ci saasi te ñoom bëgguñ rey dañoo bëgg kuy tooñ yeer ko rek mu bàyyi tooñ mm. mm-hmm. alquran ku yonent bi ay ne addu'a silaaxul mu'min xam nga ngànnaay pour rey la pour mm-hmm. gaañ pour nangam yonent bi nee na ñaan mooy ngànnaayal jullit léegi ñu delluwaat fële ci góor mm-hmm. ndaw si ëmb na nee na góor gee ko ëmbal te moom xam na ne sàmm bee ko waaye ku koy mën a xam kenn ñu bàyyi noonu bàyyi noonu bàyyi góor gaa ci jaamu yàlla am de mm-hmm. waaye yàlla koy wan rek ne ko ay mbir dana xew danaa la nattu mm-hmm. na góor yàlla yoo xam ne ci liggéey li ñuy liggéeyal yàlla yàlla daf leen di wan leen danaa leen nattu ñi xam ne mm-hmm. yonent nee na ki gën a jege yàlla mooy ki ëpp nattu euh, ba ndaw si am doom xam nga nu gars yi def dañ dem rek attaque jàkkaam ji fi muy duggee xalwa noonu mhm. toj ko taal ku génne ko moom duur ko ba mu bugg a dem mu ne leen lan la ñu naan ko fii nga toog di ñu woo ci yàlla di ñu wan jaay jaay mën a jaamu yàlla mhm. xam nga am na ñoo xam ne boo mënee jaamu yàlla da nga leen di déranger mhm. dañ lay bañ te bañe bañe wuñ la da nga mën a jaamu yàlla loolu rek duur ko ba mu bëgg a dee ne ko fii nga nekk di wax di wan nit ñi bëgg yàlla gëm yàlla ragal yàlla ndek yow di nga fi nekkee ah njaalo rek te xoolal doomi jàmbur di nga ëmbal sa doom ji juddu na noo koy tuddee mu ne leen doom rek ñu génne ndaw si ndaw si daagu daag daag daag daan naa ko ah séeri ko ko xam góor gi ni subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah xel mi ne yar gent ci la ko ndax kii négocié ko ko keroog ba mu ko sàkkoo mu tëj palanteeram bi ci la ko gëj a gisaat waaye dellusiwaat na. Mm-hmm. ñaanu yaayam gi tax na ñu dóor ko ba mu bëgg a dee. Mm-hmm. léegi mu ne leen ana doom ji ñu ne doom jaa ngi nii bébé bu bees teq ay da juddu bees mu ne leen indi leen ku ñu indi ko mu daal di laal doom ji ne ko bi xaq laa ilaha illallah dama bëgg nga wax ma kan mooy sa baay xam nga li tax yonent bi nettali histoire mm-hmm. daf doon lim bébé yi wax. Oh. bébé yi nga xam ne ci bébé bi nekkee bébé comme Seydina Isa waaw ak saay bu juree mhm. mu dal di ne tollet ne ko yow juruloo yow ku baax nga ku ragal yàlla nga ku sell nga sàmm bi ñuy wax diw sàngam te mu daan sàmmi fii ci caawa gi mooy suma baay nit ña ko doon doon ñëpp di lox ñëpp di pare pare di loxay <coughs> te li ko li <coughs> sore li ko yóbbooli mooy ñaanu wéyjur mm-hmm. moo tax ayda wéyjur dafa jar di teral mm-hmm. wéyjur dafa jar di xormaal wéyjur dafa jar di jaamu yàlla ci moom léegi nag <coughs> am na ñoo xam ne suñ amee tuuti defal seen wéyjur dañuy jàpp ne jënd nañ seen wéyjur mm-hmm. moo tax yonent bi waxoon ne mujjug jamono wéyjur dana jur maanaam jigéen dana jur sangam neexuloon a dégg jigéen dana jur sangam am na ñu ko firee woon jaam boo xam ne da am doom ak sa sang sa sa sa sang eh, seeg yow nga jur doom doom ji nekk sa sang mais doom dina jur sangam ci léegi nii ci axiru zaman nga xam ne njaam daanaka dàqu mooy way jur jur doom ba noppi doom ji wëlbatiku yilif doom way jur bi way ragal doom ji ngir mm-hmm. ngir àdduna. ngir fees del si biir ngir àdduna. Mm-hmm. Eh, damay beneen histoire su fekkee amuloo benn laajte. Mm-hmm. pour nga pour ñu xàllal yoon ni ndaw ñi gis ni wayjur ay dafa am benn waay Mouhamed Albalaqi Mouhamed Albalaqi dafa aj ñeent fukki yoon ak benn. ñeent fukki yoon daal am na ñeent fukk ak benn bi waaye forty times yëpp aji na ko màkk aj ku jot dana dana gis benn nitu yàlla. koo xam ne dafay gént ne ko yow sa aj gi nangu ñeent fukki yoon moo tax ay da gis nga aji màkk rek ñëw jàpp ne dëgg la aj gu yàlla nangu yaa ngi mel ni bés bi la jur jure amoo benn bàkkaar aj gu yàlla nangu boobu mooy aj gu yàlla nangu waaye nag yombuta xam mm-hmm. yombuta am tam xoolal ay da kii sëriñ la bu am mbooloo mu bari serigne bu am mbolo mu bare bare bare bare bare mbolo mi ñing koy top gis ci mom sel gis ci mom bax waye mom aj gu nangu daf ko te ñen fukki yoon mu ngi aji te lool mu ngi ko jele won ci lum def yaayam bim amé ñen fukki yoon ñen fukk ak benn tayi wu mu dem aji ajiwaat ku ñu wax Malik ibnu Dinar den nit yalla ku siwla koo xam ne ak ndawam bu la bu nettali woon ni mel mhm. sañang bu a mel noonu maanaam moom moo ko nettali mu ne ndawam mhm. daan na dóor nit ñi daan na naan sàngara daan na lu ne def na ko ci ndaw mhm. waaye mujj na nekk wëllu yàlla boo xam ne jàngale na lu ne dafa dem aji màkka moom Maalik ibnu Dinaar bi mu ajee biñ taxawee arafa nit ñi niñ weexee rafetaay gi lépp mu ne man de lii yellantoon yàlla wan ma kim nangu aja mandokel ko wax ma kim nangu ajam ma ko dégg de ma ko mhm. ki nga ne ajam nangu mhm. pass dugu avion sonu dem ba nanggo, sa aja nangu ne ko dañ ko wara jale mu tëdd guddi gént ñu ne ko aj de fi nga gis arafa ñi taxawoon ñëpp yalla nangu na sen aj kenn rek la ajam nangu ah. waaye waxuñ ko kan la gor gi nak amu jamm mu ne kon mom la gis nga mag ñi niñ sellewoon mhm. xam nga bu doon ñun bu ma ko ah. géntee dama naan xam naa bu ma jur saañang la <laughs> saañang saañang moom la su fekkee saañang dem na di di kooval euh, Gambian Talents TV mhm. aj ga ma dem euh, ma gént ne am na ko ajam nangu du ma foog ne man la de mhm. dama naan xam naa saañang la wala ayda ayda ah. lay doon ayda mi ñoom moom bi mu dafa foog ne boppam moom la boppam moom bi mu ko gé bi mu mu ñaan yàlla pour yàlla wan ko kan la mm-hmm. yàlla wan ko kan la ne ko Muhammad al-Balaqi mu nga jógee ci dëkk sàngam moom la ajam gi nanguwut mu dem laajte waa gox boobu ne leen yéen jógee dëkk sàngam ñu ne mu ne ana diw Muhammad al-Balaqi xam nga lu ko nit ñi wax mm-hmm. ah yow foo jógee mu ne leen man maa ngi jógee gox sàngam waaw du jaas suñ kilifa gi ñëpp ko xam yaa ngi mhm. laajte ku baax mhm. yaa ngi la ñun ñi ñëpp ay taalibeem lañ ñun ñëpp moo ñu jàngal diine mhm. ñun ñi ñëpp moo ñu yar moo ñu yóbbu ci yàlla moo ñu xamal yàlla waaye góor gi jaaxle ñii nee nañ kii mooy seen sëriñ ba noppi sëriñ bi moom yàlla ajam bi nanguwul ñu ne mu ne leen ànd bi ñu ne ko mu ngi ci barab sàngam bi mu demee di di dox sëñ waa ngi toog nii jox ko gannaaw bi mu jubee rek gisu ko de mu ne ko kookaan la mu ne ko man la Malik ibnu Dinaar mu ne ko ah yow nag dégg naa sa dëddu àdduna mu ne ko dëdduwuma àdduna de dama amul lu ma wane woo ci àdduna rek dama ñàkk rek mu ne ko ren yaa aye mu ne ko ma aye lan mu ne ko yow ren yow la yàlla wane suma aj nanguwut waaw rek sëriñ góor gi ko xam ne ko waaw ko aj si naa fii ñeent fukki yoon ren mooy ñeent benn at bu jot dana am góoru yàlla gu yàlla wane suma aj nanguwut waaye duma tàyyi de yàlla mooy borom yërmande bu may aj junne yon dana aj ci mhm. mu ngi xol loxo bi ni ñu ko dog mu ci tak ben chaîne dal di ko def ni ci baat bi ni la def loxo bi ben loxo bi rek lay manam mu ngi melni kuy ponis ku kuy ponis mhm. ab chaîne lañ bënd ci loxo bi ni Tak ko ci baat bi mhm. góor gi ne ko waaw li nak mu ne ko so gisee li dal ma ñen fukki yon ma aj ci mak nanguwut be ñen fukk ak benel bi dafa am ben ko bo ma gëna nek ndaw weeru ko di dëgmal si bañ ne weer wi teru na dem ca fa ñuy màndi mandi te xam nga sama turandoo mos na woo Ali Ali ne ko Ali mu ne ko mu ne ko gis nga ki bàyyi sàngara ci ci lu dul ngir yàlla bàyyi ko ngir di bëgguma di daanu ci mbedd yi bàyyi ko ko ngir yàlla de bàyyi yàlla waaye daf ko bàyyi ngir buggut a yàq deram buggut a yàq mu ne yàlla dana ko nàndal ëllëg ca kaas yoo xam ne mooy foos ki ci naan ca aljana Kira nan sangara tok rek bayiko ngir bëgg te yaq turam bëgg te yaq nangam yalla dana ko nandal ci kasse aljanna legi mu ne bes bi koor gi teru ma mandi ñew ci kër gi fekk sama yaay da dan tok ndogu ak xëd yu bari di saraxé sama yaay tek na ñulo bi man yëgu mané wër wi teru na ndax dama mandi ba ci kër gi rek sama yaay ne ma Muhammad ni nga defati Muhammad rasulullah sa tur wi muhammad rasulullah wër wi wër koor wi mané mère yow bëri nga wax way ma ne ñokket rek jël sama yaay yenu ko rek depuis cin la ne ko ca sóob sóob ko ca cin la ñu lub ba dëpp sujeer ba mu ne man bi bi may xiqi dama fekk dëj baa ngi ci kër gi ñu ma tëj ci néeg bi bis bi doosu sàngara bi dañuy mane leen lan la nit ñi tasaaroo sama kaw rey nga sa yaay naan lan la rey nga sa yaay rey nga sa mu ne keroog laa dog suma loxo bi def lii ca laa commencé di aj ñeent fukki at ak benn maa ngi ñëw màkka pour tuub yàlla nee na lu ma baal ndax li ma def sama yaay malik ibnu dinar moom tiit dal di daw ne ko dëgg la kañ yow kay yàlla du la baal yàlla mer yàlla mer xam nga ko mere hmm. malik yàlla du baal waaw yàlla du la baal yow loolu nga def yàlla du baal moo tax foofu tam dañ war a bàyyi xel mhm. da ngay toog ñu jox la mhm. micro ne la oustaz kaay wax gannaaw waaw safara ngeen jëm dugg jaanama ñu buru buru leen bàmmeel yi kii <laughs> nangam nangam waaw dalalal xeli nit ñi mhm. gis nga bàmmeel tàng naag xat naag lëndëm na bu fekkee ku yàlla gërëm la biiru yaay moo gën a xat moo gën a nugg moo gën a lëndëm te liir ba fa nekk yëgu ko am na ñoo xam ne seen bàmmeel mooy dàq seen kër lu kër gi neex neex neex neex neex yàlla daal di koy ne ko yow yaay yëngu dugg ci sama mbir kii baal naa ko ba képp kum ajandoo ci ñeent fukki at yi nangu naa ajam yëpp nanguwaale seen aji baalaale leen ñoom yàlla baax ayda yàlla baax gis nga woy jur fooraay mm-hmm. ñaari histoire yi ma lay jox mooy nit ki na bàyyi xel ca wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma yàlla nee na sa ñaari woy jur yi bu leen gëdd bu leen ciipatu bu leen jànni waaw bu leen nuyoo nuyu boo xam ne sax dañuy jàpp ne danga am lu la naqari xam nga bokk na ci birrul euh, waaliday ni maanaam fiqul bir ayda mhm. léegoo-léeg sa ñaari waajur yi boo amee lu la naqari boo leen ko waxee ñu am lu leen naqari pour bañ a naqaral seen xol nga nëbbu naqar boobu mhm. waaye am na ñoo xam ne lu leen kosi ci mbedd mi ñu dem wax ko seen yaay mhm. am na ñoo xam ne seen xolu yaay li ñuy kontaan parce que ñoom dañ dëkkee tooñ ci mbedd mi te saa yuñ tooñee dem dem wax seen yaay ne leen diwa leen def nangam ñooñu nag defar leen ci àdduna du yomb ñooñu defar leen ci àdduna du yomb mhm. moo tax euh, gis nga fii ayda mhm. wa min fiqhil birri bii tax ma di ko wan mhm. mooy fexeel ba sa appareil téléphone bii ah bu bu bu mu xañ sa wéyjur yi li waroon a am ci yow sa yaay nekk fële bëgg a waxtaan yow nga nekk TikTok yaa ngi amee xaq sa yaay bëgg a waxtaan yow nga nekk Facebook waaw dafa am benn xale boo xam ne jàngalekat yi daf leen da leen waxoon ne leen bind leen ku ci nekk loo bëgg a doon boo doon judduwaat boo nangamee bon seen ticca bi dangeen ngeen di bind jox ma su ma demee ma riit ku ne bind turam am benn xale bu bind bu yéeme bi mu demee bi comme jigéen la xol bi dafa nooy mm-hmm. daf ko riit rek di jooy jëkkër ji ñëw fekk muy jooy mu ne ko looy jooy mu ko suma benn student lim bind mu ne ko lum bind dama ko laaj boo doon judduwaat loo bëgg doon wala ci ban famille nga bëgg a doon mu ne bu doon judduwaat téléphone lay doon mobile phone. Mbado baayam mu baayam mobile am bi du tilim mobile am bi du ko sori. mobile am bi charge du jeex mobile am bi euh, du ñàkk crédit. du mhm. ñàkk connexion. Mhm. jamono bu nekk rek mobile baa ngi ci pegg. mu ne yaayam itam talut kenn talut doom talut kenn. mobile rek mu moom su doon judduwaat du doon nit mobile lay doon xale bi xëy ma dëgg dëgg dëgg dëgg mhm. ay da la jàngal mhm. kon euh, téléphone yeeg technologie bi xew nii mhm. nga xam ne yàq na lu bari defar na lu bari waaye yàq na lu bari moos xam nga ayda léegi yëgante euh, yëgante léegi dafa dàq kenn yëgatut kenn moo tax gis loo fi mu nekk nii nit tëj doomu ndeyam nit ñi dañuy foog ne def na crime pour moom defu dara parce que fii la tut doomu ndey comme nit nag mën naa tëj doomu ndeyam ah dëgg yàlla nit tëj jibar jëkkëram wala jabaram loolu du dara ah, oustaz bëgg naa <laughs> ñëw foofu noonu parce que mhm. um, soo xoolee si diggante waajur ak doom um, mhm. dafa complicated ba nga xam ne ni am na yenn scénario yoo xam ne yenn um, jëfin yoo xam ne ni ñaa ngi ko jëfee si société bi te ñu ngi see teg suñu bët mhm. xaw ma nag yow islam lan lay wax si loolu parce que uh, man witness naa loolu gis naa ko teg naa a suma doom bu góor boo xam ne ni dafay tiim waajuram di ko saaga di ko wax lu ko naxari waaye dafa dem to an extent dafa jàpp ay waajuram di ko dóor benn bi seen xëy rek ñu ne um, booy bi dee dof na dóor na yaayam dóor na baayam léegi um, islam suy teree um, wax ju ñaaw doom rawatina mu dem to an extent of di saaga waajuram teg si di ko dóor oustaz waajur wi su ñaanalu doom ji sax ñaan bu bon lan la l'islam wax si loolu kooku bu ko waajuram yu baale sax yàlla du ko baal xam nga amna ci togn yo xamne ne buma la ko togné buñ démé ba xasee ba ag ci yoon man suma ni ne génn ci sax gaay yoon mom du ci mëna bayé ndax mhm. foog mu doxal liko war mhm. gis nga Aida bu yalla né bul wax sa waajur wax ju ñaaw ah mhm. xana xamone ne téré na nga merlo sa broda ngir lu naqari sa waajur jur tax bokk na ci fiqhul birri say broda da nga war di fe jamm ci seen digënté ndax say wayjur di ko sen wayjur di kontan don nek sa wayjur sax ya mandu mànduwuñ sen digënté waye wa travail rek ngay bégloo sa wayjur moo tax doom joo gis muy nakaral wayjuram ko xagn na bopam aljana moo tax buñ ne aljana ci ronde gu wayjur yi mhm. wa léegi kon ki dóor wayjuram kon ko xagn na bopam moy aljana mhm. setal histoire alxamatu alxamatu alxamatu xam nga liko ko ci jamono yonent bi dafa tak soxna soxnaam ak yaayam mënuñu déggoo génnewut yaayam de dafa génn ak jabaram bàyyi fa yaayam mhm. bëgg naa ndaw ñi déglu bu baax maanaam génnewut yaayam de dafa génn ak soxnaam bàyyi fa yaayam mhm. yàlla dogal dee dikk gis nga dóor dóor waajur naqaral waajur day mettil sukuraat ay jël naqaral waajur dafay xatal bàmmeel day tàngal bàmmeel day mettil dee ba noppi naqaral wayjur day day gàttal wërsëg day gàttal fan maanaam gàtt fan nekkut at yu bëri wala at yu gàtt nit koo xam ne boo fi jógee rek sa lépp far te gis nga koo gis muy dóor wayjuram maanaam kuy jànni juram doomam dana ko dóor kuy dóor wayjuram doomam dana ko jam mhm. jam fetal wala paaka mhm. maa la wax li buñ guddee fan si kawam sax képp koo gis muy dóor wayjuram doomam dana ko jam ngànnaay wax dóor de jamngànnaay kamaata diinu tuddaanu dafa am ku daan dóor woy juram ci jamonoy mag ñi di dóor woy juram di dóor woy juram bi mu amee doom maanaam mu dóor woy juram dóor woy juram ba yàkkamti woy juram yu dee mu takk woy juram yi yóbbu leen ca ci àll ba ca àll ba mhm. teg leen saret yóbbu leen ca àll ba takk leen ci ren ay garab bàyyi leen fa lekk bañ dee xam ah, nga ndax dégg ma dafa daan mhm. dóor way mu mujj gi mhm. mu yàkkamte way juram yi wa takk leen ci ron garab bàyyi leen fa tuuti mbuusi lekk ba kii bi mu amee doom doom ji daf ko dóor moom tegut ko ci sarete daf ko takk ci mbaam di ko watat mhm. ba ca àll ba mu yeew ko ba mu ne ŋok moom bàyyi woon na fa way juram lekk mbuusu ndox moom bàyyi ko fa dara moo tax fan yii nii ñii jamono bi ñuy dund am na ko dafa gis Eh, ay waajuram tabax kër gu rafet defaral waajur yi pantre suñu doon defar seen néegi AC defar waaye waajur yi ñu defal leen néeg yu xat yoo xam ne maar day taal waaye xat doomam yi dañ bëgg seen waajur benn bés doomam ji ne papa yow tam man suma magee ni nga defal suma suma ñoom maam noonu laa lay defal naa tabax kër gu rafet mhm. defal la néeg su ndaw ci buntu mhm. ca la génne waajuram yi ci néeg bu ndaw ba defal leen fa gën a foor mhm. alxamatu dafa dem ba toll ci sukkuraat moom pour mu dee mënta wax laa ilaha illallah gis nga dóor sa ñaari wayjur wala naqaral leen day tax nit ki dee aléegi weddi ay da salab li ñuy wax salab nit ki dem bay war a dee ngëm yàlla am ñu rocc ko alxamatu bi mu waree génn àdduna mënta wax laa ilaha illallah xam nga nit buy génn àdduna buy sukuraat ñi ñi ñi koy doggali doggali xam nga doggali dooy dégg turu doggali doggali hmm. waaw xam nga da ngay jigéen ñi di ko boole ci seen jumtukaay sëy waaye cuuraayu doggale ak cuuraay xamuñ ne doggali mooy kuy waaja de nga di ko dimbale pour mu dee waaye boo demee ci cuuraay ca kii boo bés boo amee kër da dem ca gaay jaaykatu cuuraay sama jëkkër du ko doggali kuy waaj a mu jëkkali ko <laughs> hmm, gaay nag am na am na doggali am na nangam am na nangam doggali moom xam de ma ne leen man xetu cuuraay rek laa bañ sëxaraam waaye rawatina doggali parce que man maa de. <laughs> doggali kay man duma ko taal. Ah, waaw léegi xam ne muy génn boo koy doggali boo doo toog ci wetam naan ko waxal laa ilaha illallah nit buy dee dafay soxla nit ñi toog ci wetam moo tax mag ñi daan bañ luy waral dee tumaranke dee foo xam ne sa benn bokk ne ko dafa métti mhm. ndax nit buy dee dafay soxla ndimbal ndimbal loolu du ko teree dee waaye inna lil mawti sakaraat dee dafa am wextaan moo tax kii toog ci wetam dañ ko wax mu di ko may ndox te di ko raayal ndox ci kanamam parce que jamono boobu nokki gi amatul aller retour dem ak ñëw déedéet benn rek nokki gi day dem te du dellu soo ko doon nandal géej yëpp sax du du màndi moo tax dañuy boo boo dendee kuy génn àdduna nga di ko may rek muy naan ndax iblis day nekk ci wetam di windeel biteelu ndox te yow doo ko gis naan ko weddil yàlla ma may la nga naan moom mii dee nag koy gis parce que kii génn àdduna ay day gis loo xam ni ñim toogat ci néeg bi duñ ko gis malaaka yi ñëw ak barab bam jëm bu dee aljanna la bu dee safara yàlla ci yàlla musal léegi yow mi dimbale kii génn àdduna téere yi dañ ne la bu ko wax ne ko waxal laa ilaha illallah laa taqul lahu qul laa ilaha illallah bi nafsika laa ilaha illallah yow da ngay nekk ci wetam rek naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah jamono boobu système bi day jël li ko gën a jege rek daf ko jël bu dee ay sabara fa ne système bi daf koy jël bu dee musique moo tax kii dee day delluwaat nekk comme comme bi muy doog a ñëw xale bi gis loo bu ñëwee rek day naan imam yi gaaw leen mais duut imam yi rek yaay ji sax mën naa noddu ci nopp bi te xam ci nopp ah, sa doom juddu bi nga noppaloo ci mat wi balaa musique bi son bi di dugg ci système am bi nga wax la allahu akbar allahu akbar ashhadu an la waaye da ngay gis doom yaay ji dafay sonn ci matu bu matoo ba pare ah fekk jël yootu mobile am bi ne ko mm-hmm. ma seet ma suma staab yow mm-hmm. hmm? waaw su ko defee bu ko xam nga jógee na ci mat ma mu daal di clic day gi doom ji day toog rek système dugg ci mbaa xol yaa ngi féex au lieu que <laughs> allahu akbar allahu akbar day toom rek système bi li mi njëkk a capté mbaa xol yaa ngi féex ah <laughs> bërëm bërëm amu ci amu ci léegi waaw waaw Sagnang man xanaa dama war ay da yow di bët bu seet ma dugg sa oto bi nga pileel ma ñoom gone noo <laughs> xam nga ki ki kooku sama xarit la ki wooy waa xool yaa ngi fi wax wax ma taasukat bi kële sama xarit la moo tax tubaarkalla léegi ñu continuer ci topic bàyyi loolu noonu <laughs> waaru de ma oustaz ak mbaa xool yaa ngi feex ayda bu bu amee doom ba pare loolu lay njëkk a déggale doom ji mm. léegi système mu doom ji loolu lay capté mm-hmm. mu jàllar bi nag doom ji sori loo ko yàlla ala kullu mawludin yuladu alal fitre doom ji commencé sori yàlla léegi buy génn àdduna itam mm-hmm. nañ toxal yooyu yëpp musique ak sabar ak lépp loo xam ne dafay nekk ci jumtukaay seytaan yi mm-hmm. ñi jegeel alquran tey wax laa ilaha illallah mu capté ko da ngay gis rek dangay taw mi yàgg moom tam na laa ilaha laa ilaha loolu bu ko mujjee wax daay rek aljana la jëm xam nga am na histoire moo fi doon nettali ci programme sabal xëy mm-hmm. ñaari gone ya demoon noosi ji pate ji ca réewum tubaab ma ah wala ñetti gone ya mm-hmm. bañ demee di noosi ñu dem ca benn eh, noosukaay ca guddi ga malakal mawti seet si kenn ki listam ndeke ñoom dañoo dem pati ji waaye kenn ki ndeke list bi dafa war a génn àdduna ci ci ci ci holidays yi mm-hmm. léegi bi ma malakal mawti ñëwee pour faat ko muy sukuraat ñaari xale yi xam ni ñu doogalee kuy dee kenn ki naan ko booy booy jullit nga de booy wax laay laay la mu naan leen booy bu ngeen dellu dëkk ba suma gel bi suma jànq bi ah. suma kaas sàngara dama ci def nangam booy maanaam mu mujjee wax mooy suma jànq ba suma kaas sàngara moo tax bii ak bi wër dafay xaw a yéeme mm-hmm. léegi nag fontoo way jur day tax nit ki buy génn àdduna lim gënoon a miin lay deyaale ñaata wàññil majaay jaay la déedéet boobu bu ko mujjee déedéet ko mujjee laa ilaha illallah muhammadun rasulullah moo tax alxamatu biñ ko ne waxal laa ilaha illallah munu ko wax parce que fekk yaayam ne na ko suur naa la àdduna ak àllaaxira yaa ma jëndee jigéen mais da bëri na fi de bëri na fi sax bëri koo xam ne ay des mhm. imaginel sa yaay waxuma kii waxuma ëmb waaye ay da jafte rek dafa metti mm-hmm. jafte dafa métti ci jëkkër ju am jom dégg nga maam mm-hmm. xam nga li ma wax li ma wax jaaxalu la <laughs> jaaxal na ma wax ma jabar de jëkkër ju am jom mm-hmm. jafte dafa métti ci moom jëkkër ju am yërmande jafte dafa métti ci moom parce que jëkkër bu amee jom am yërmande bu jabaram di jafte daf koy dimbale comme dafay xam ne dafay maanaam xale bu ndaw bi ñu teeru jabaram foog mu nekk comme xale bu ndaw diko ko bësal yaramam di ko laaj lu mu bugg di ko dimbale ndax yim gënoon a bëgg ci jamono bi muy eh, jafte jafte mooy buy kaf këf ëmb mm-hmm. lay gën a bañ aka bëggoon ceeb mm-hmm. xetu ceeb daf koy distop daf mm-hmm. koy wëcculoo dafa bëggoon nangam léegi nag jëkkër ji daf ko war a dimbale foofu noonu imagine ay jafte ni mu métti jafte jàll ëmb ñëw waxuñ benn weer juróom-ñeenti weer. yaay ji di gabar gabar ak moom. te gisal yaay yi sax léegi pour boot ko jox mu ne bootaa bay bëgga a mhm. waaye yow kii doo ko mën a wàccee bàyyi foos booy dem xew yóbbaale. Mhm. booy dem julli. Mhm. booy nelaw yépp léegi ëmb bi bi koy imbi ñu ne dafa tollu diggante. léegi juróom-ñeenti weer yi olof yi mag ñu mag ñi nga xam ne dañ yaru dañ naan dafa tollu diggante wérut la wérut wérut. doo koy dégg. Mhm. diw jigéenu wérut la léegi. jigéenu wérut la waaw. Mhm, dama koy dégg nine months loolu lañ koy woowee. kenn du ko woowee ndey kumba léegi la xew. waaw ah, kenn du ko woowee jigéenu biir la déedéet kenn du ko woowee. Mhm. dañ naan jigéenu wérut la jigéenu wérut la jigéenu wérut la jigéenu wérut la ba juróom-ñeenteelu weer yi mat mu war a am doom mag ñi ne dafa tollu diggante dafa tollu diggante boobu kenn du ko firi. ci oustaz loolu léegi firi ci kanam jigéen ji am dafa tollu diggante. mag ñi nag jël bind ay bind jox ko mu naan pour mu mucc ci jàmm bu ko kenn opéré bu ko kenn nangam doom ji judd mhm. doom joo judd yaay ji continuer di ci sonn di ci sonn di ci sonn ba doom ji maccoo ba doom ji màgg li ci war yëpp yaay ji def ko ba mu màgg ayda da mat waxambaane bu yaay ji bu feeloon benn point rek doom ji kenn du ko bëgg day lamb mhm. Mhm. am na yaay yoo xam ne dafa am fuñ féel seen doom doon tut góor dañ féel am na fuñ féel ay da am na fooy féel yow yaay ji rek doom ji du nekk góor am na fu yaay ji di féel doom ji day manqué du ñor mm-hmm. te ay da fi nekk ni yow bëggoo doo jëkkër ju ñoro di ah oustaz jëkkër sax ma yow di mu may <laughs> ah, am na fu fu yaay ji di féel doo waa day dem ba màgg di yuut rek mm-hmm. jëkkër ju yuut ku ko bëgg fu mu toll takk kii bi nu mu tudd babet babet laan kii nu mu tudd. bobet bobet bobet. <laughs> saa mu ne ko eh, doo ñëw takk la mu ne ko xanaa da jëndaale. Eh, bobet container bobet parce que yow yow foo toog di yuut. mu ne ko kon utal ma jigéen ju yuut ni man ñu di yuut rek. ah. léegi loolu yëpp yaay daj ko ci doom. nga daj benn xale bu jigéen boo xam ne mu neex dem mu naqari ngeen séparé. Hmm. imsaakun ma maarofin aw tasrihun bi ihsaan la yàlla wax mu neex tabaax dem mu naqari ngeen tàggoo ci jàmm loolu yàlla wax de kuy uti jabar bàyyil xel loolu mu neex ngeen ànd mu naqari yàlla nee na tàggoo leen ci jàmm bu leen yóbbuwante kaso yàlla ne bu leen yóbbuwante kaso tàggoo leen aw aw aw tasrihun bi ihsaanin léegi xale bu jigéen ñëw nangu la ci sa yaay loolu am na ku ko ku ci waxtaanal fan yi mi doom yu góor ma ne ko soo nangoo doomi jàmbur ji ci yaayam sa doom yu góor yi ay xale yu jigéen ak ñëw nangu ko ci yow mu ne ma nga ne ak ni ma xaritoog ñoom ma ne ko dañ dañ lay fay sa bor mm-hmm. ku fi nangu doomi jàmbur ci yaayam rek mm-hmm. soo amee doom yu góor dañ ko nangu ci yow ak loo mën a def nag moo tax dañ ciy gis ñoo xam ne maire yoo xam ne mënuñoo jubóog seen goro yi ndax wóoluwuñ leen seen doom yi ndax dañoo nangu woon seen jëkkër ci seen yaaya loolu tax wóoluwuñ seen doomi góor yi mm-hmm. ak seen jabar yi waaye ala kulli an lu leen wóoluwaat wala dañ ko am mm-hmm. moo tax kon xam na waxtu wi sori na fi nekk ni mm-hmm. ma daaneel foofu noonu sori na waaye bala ñoo dem oustaz bëgg waxtaan si lii ah, parce que um, daf dee bëri lu olof njaay di wax liggéeyu ndey añu doom ah, sa biir wax wagga ko ndey am na fuñ dee féedee daf dee feeñ si doom yi waaw oustaz su ñëwee si kàllaama boobu noonu diina la la wax. féel bi ma wax foofu man miinu ma li olof di wax noonu ne euh, liggéeyu ndey añi doom ndax nday dana xëy te doom du gontal boppam. Mhm. ndey bu xëyee bàyyi dafa fekk bàyyi fajarul doom xam nga ndey dana liggéey bay bëgg a dee bàyyi yàq liggéeyu ndey waaye. xam ñun suñ kalaama jamono dafa tolloon foo xam ne góor moo gënoon na dominé ci njàng ci mhm. njàngam diine mi mhm. góor ñi doon jàng doo doon nanga moo tax terme yu bari nga di ko mhm. waaye danga nga gis jigéen ñoo xam ne dañuy sëy bay bëgg a dee seen doom ñëw yàqu loola am na ci yoo xam ne ca wayjur wu góor wala parce que kullukum raaxin wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi waaye nag itam ku juluk sa doom ku ñuluk sa jëkkër yak sa doom mhm. loolu wax joo xam ne ju jar càmbar la ndax léegoo-léeg ni ngay toroxalee sa jëkkër doo mën a am barke ci say doom mhm. maanaam say doom barke du yomb mhm. léegoo-léeg nag nga gis jigéen joo xam ne jëkkëram daf koy toroxal bu doom ya di tekki du fi fekk way jur yi wala way jur yi teraangaay gàcce lañ cay teeru dañ cay teddee parce que fii ayda nga fi gis ñoo xam ne nii ñi nga amee seeni soxna ñoom mag lañ ñoom ak seen jabar Mhm. seen jabar yi mag lañ ndax ñooy seeni aawo mhm. waaye joxatuñ leen aye takk xale bu ndaw bàyyi aawo ya ak mhm. doom ya bari na fi su ko defee góor ga fu mu taxaw te naan suma jabar ji daf ma toppatoo suma suma séet bi mooy suma aljanna moo may toppatoo moo ma nangam déedéet da nga juum léegoolee ker sedd fekk ay yëmba nga ca kaw yëmb xam nga yëmb nga ñëw ca ker gu sedd ga tàngaa wi simmi sa moom dal di ngekkanaayu jaaxaan yëmb yi attaque léegoo-léeg ker tàng fekk xiwal ga fa la nekk yàlla nee na bari na bu ngeen bañee dara sib ko fekk mooy li gën ci mhm. te gis nga dafa am xaq yoo xam ne ci diggante ñaar ñi dencante dafay topp doom loolu la olof yi bëggoon a wax léegoo li di li baay di def doom dafay topp doom li baay di def yaay léegoo-léeg mu topp doom mhm. du topp doom yëpp waaye dafay am benn doom bu ko yàllay sotti pour mu mën a fayul yaayam ci baayam léegoo léeg li yaay di def baay dafay topp benn ci doom yi pour mu mën a fay yaayam lu bon lim doon def moo tax kon wax la joo xam ne. Mm-hmm. doo ko jàpp bépp ak jàpp waaye doo ko bàyyi sànni ko ci mbalin ma itam. Mm-hmm. boo defee lu bon lu bon ngay fayeeku. moo xam góor la moo xam jigéen mm-hmm. ku ci ji lu bon daal lu bon rek ngay góob. kamaata diinu tuddaan moo tax kon jur yi nañ góorgóorlu sëy yi neex ngir njaboot gi. wayjur yi dañu war a fexe sëy neex ngir njaboot gi mhm. démb dama dama jël xam nga man fa mu suma doom yi nii mel ni ma dama mel ni koo xam ne ñoom comédie lañ ma jàppee parce que damay bëgg ñoom ñëpp ñuy doom yeeg taalib mhm. ma am suma soxna suma soxna ma indil ko téléphone doom jaa ngi toog nii ku léegi ma génnee téléphone bi eh, rek surprise ko sukk nag di ko ko jox ne kadol lof la mota tax mm. ji mer na papa yow da ngay sukk ni ma ko wa dama lay jangal bu ëllëgee bo amé jabar mm-hmm. ni ngay té ni ngay ni nga ni nga té manam njabot gi tam fokk nga wan len jamu. ci nga am ak sa jabar mm-hmm. bu ëllëgee ñi xam sey sëy la waaye so len indi ci fitna xagn na lol bu ñu ci àqi doom dana gën a feeñ ko allah bu soobee suñ borom mm-hmm. waaye fiqul bir bi nak mom xajut dañ ko waat dañ ko waat kay um, batay fi ci digënde ci yo Gambian talent TV Euh, waxtu waa ñëw waaye jàmm waaye oustaz bala ñoo dem rek xam naa um, aaxu njureel dafa brot mhm. waaye dinañ ñëwaat baak uh, waxtaaneek moom oustaz um, bala nga dem rek bëgg naa ñu wax si lii parce que sometimes uh, waay jur dafay njaboote mhm. dafay am njaboot uh, um, am na yenn yenn waxtu yoo xamante ne sa njaboot duñ juboo mhm. foog ñu laalante wala ñu xeex yow waajur bi nga war a dogal mhm. ne mag bi yaa tooñ wala rakk bi yaa tooñ ku tooñ nga wax ko moo tooñ mhm. ku yoo am dëgg nga wax ko moo am dëgg waa dafa am si yenn doom yoo xam ne ni du ñuy nangu seen waajur ñu dogal duñ leen di jox chance bi euh, ba dañoo dem tuwaan externe ne euh, buñ jotee seen rakk yi dañuy mer ba naan bëggatuma bokk ak moom buñu mënoon a séddoo yaay ji ñu séddoo ko na dem yoonam ma dem suma yoon oustaz moment boobu noonu um, diine lan la wax si loolu. waaw li diine wax mooy defar ab diggante jaamu yàlla gënu ko rëy rawatina sa biir njaboot te gis nga diggante dara du ko defar loolu dëgg. Mhm. maanaam bu fekkee ne ki ki nekku ci dëgg da nga ko ragal a wax ne newul ci dëgg diggante du jag ba ilaa yomi diin loo bëgg bëgg defar ak loo ñaan ñaan loo mën a ñaanlu ñaanlu mhm. diggante bi comme ki nga xam ne mooy def njógadi digg kenn mu ko wax dëgg. kon dëgg du fa am mhm. moo tax kon fokk jur di bañ ragal doomam ragal yàlla bañ ragal doomam parce que jur bu ragalee doomam rek mhm. loolu yàq bu rëy lay def ci société bi ndax dana yàq famille bi juboo du fa am mhm. ndax doom jo bu màggee du respecté wayjuram way moom rakam yi duñ ko respecté parce que doom ji respecté wul wayjuram ay rakam duñ ko respecté su ko defee moom ki nga xam ne respecté wul wayjuram day bëgg rakk yi nag respecté ko jox mu bëgg a indi foofu kilifteef du sotti. du sotti sax moo tax fokk wéjur wi nangu ne moom mooy kilifa. Mhm. njaboot gi nekk ci ci gannaaw topp ko. Mhm. waaye li ñuy wax naan njaboot njabootu kaat kanaara léegi musiba la. Mhm. musiba la bu ñu waxoon njabootu mu sax. wala leneen waaye kanaara moom xam nga moom day topp njaboot gi rek ñu dugg ca ndox mu tilim. Ah, kon wéjur day topp njabootam lu def lu mbon bon rek nga topp ci loolu. lislaam nanguwul lool. dafa war a fexe lu benn la njabootam te lool bokk na ci mooy mandu ci diggante doom yi. ki am ak ki amul yëpp nga emal leen waaye xam nga waajur yi tey yu baree baree baree bari doom ji am mhm. kooku mooy kooku mooy moom la ñuy tagg mhm. moom la ñuy wax ne ko yaay seetu diw mhm. yaa nangam yaa ma teral yaa ma nangam ki amul ñi jàpp ne ku bon la maanaam ñàkk dafa mel ni crime la léegi ñàkk soo xoolee ci société bi bi ñuy dund ñàkk dafa mel ni crime la te loolu mu ngi jógee ci mu ngi jógee ci famille sa yaay boo amul defoo du la defoo sa baay boo amul du la defoo kële la ñuy laaj xalaatam luy war a xew ci famille bi kële lañuy woo yow mi ñàkk soo génnee kenn du la xaar añ kenn du la may mm-hmm. moom mi xaleet comme am na mooy joxe dépense bu génnee dañ koy tëbal añ bu yéexee ñëw dañ koy nàngam léegoo ñu ne ko loo bëgg ñu togg añ xam nga loolu yaa ngi jëmbat en boo xam ne ci sa biir famille soo muytuwut rayante bu fa amee sax yaa ko andi mm-hmm. hmm? moo tax kon nañu yar njaboot gi ci yarun Euh, Seydina Muhammad bi nga xam ne moom la indi mu di asiraatal mustaqim euh, waaw ba tey rek euh, fii la ñoo em ba beneen yoon dinañ indiwaat aaxu aaxu njureel ñu gën koo yaatal xam nga li ma gis léegi ne ci fiqul bi mhm. ma jox la boobu nga tàgguwaale ko mu ne reerando ak sa wayjur yi wéttalante ak ñoom moo gën aju aj gudut farata aji màkk gudut farata limi bax bax baax ma farata de. Mhm. comme umra wala yenen ki aji aji mhm, mhm. aji wat ni mune rerando sa ñaari wajur di len wetele wala sa yaay. di len wetele ñi bekk ci yow ngay bekk ci ñom mo gën dem aji mak aji dul farata ay da kon lolu lolu jarna baye xel de. jar na bàyyi xel bu baax sax contane kontaan rek tëjaale mer bi dem ci restaurant ci lang mané ko jarna baye xel bu baax. oustaz ñu bàyyi la nga tàggatoo fi su ko defé ñu tëj fi waxtan wi. ba next Tuesday incha allah fii si biir Gambian Talents TV. waa ay ñu ngi sant bu baax a baax euh, ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm euh, neex a ànd ak laal la tuddee programme bi moom yàlla bu ci cat dugg <laughs> waaw sa suñ kii suñ opposition yi itam <laughs> sa wala sa opposition yi nañ muñ nañ ko muñ rek ànd bi xam naa dina leen xaw a kii waaye nañ ko muñ rek ñi ñi gërëm nag suñu euh, caméraman ak suñu technicien caméra bu jigéen caméra kat bu jigéen nuñ koy waxee ci na nga du dolli ci woo woman bi ah ok mm-hmm. caméra woman mm-hmm. waaw ngoog boobu moom mokkal naa ko eh, ñoom saañang <laughs> sa xarit tubaarkalla xarit soxna si nu mu tudd Binta Njaay ah, ajaratu Binta Njaay jaata Njaay dégg naa Njaay ba mu demee géej jën yi dafa wala ngaan eh, séeréer bi nag Safiyetu Safiyet a jaaju ah, ah la <laughs> nax na leen <laughs> nax nga ñu de sati safeetu jaajo ak séeréer. Mm, jaajo la sant de. Ah, man maa ngi koy doog a dégg. séeréer naan fit bi ba mu sant jaajo. Hmm? Mm-hmm. Ah, baax na kon yow lan nga faana faana sama mbokkum faana faana. xajam bombe ah, kon nag faada faada yem fi bàyyi la nga tàggoo jàmm jërëjëf. <laughs> di ko jaajëfal bu baax saa su nekk ñaanal fan bu gudd ak gu yaram yàlla bàyyi ko suñu kanam bam yaaga yaaga. aaxu waayjur aaxu njureel lu jara waxtaanee la ndaxte jamono juñ toll nii jamono toll na foo xamante ni doom day taxaw di wax yaayam yoo xam ne ni bu ci wëñ tàbbee dee nit war koo bàyyi xel bu baax a baax a baax ndaxte waayjur lu jara fonk la waayjur lu jara value la ndaxte seeni ñaan daf lay topp ba faw kon nag maa ngi jaajëfal samay waajur suma papa ah, képp ku ko xam-xam ne ne man mooy suma xarit ah, di ko ñaanal ah, yàlla suuf sedd si kawam yàlla xaree ko àjjana yi gën a kawe si àjjana yi waaye di jaajëfal suma yaay salangaari saa su nekk rek foo leen ma gis may reere xam ngeen ne salangaari moo nekk si gannaaw di ko jaajëfal bu baax a baax a baax dig leen dox dajee ba beneen Tuesday incha allah su neexee yàlla jërë ngeen jëf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 maa ngi wër mënu maa jot xaalis jeex na dama ne noppil coono jeex na hmm. jooy jeex na frustration Financial Service coono jeex na dugal si biir am sa smile bu bari amuloo benn kiw ay smile eesi bu mu sëkk si sa body Afia rek ñu ngi fii Gambia si 33 branches si biir réew mi foo biir Gambia ñu ngi fa am suñu place koo na boo Afia Money Transfer ñu ngi transfer services yu bari fii si biir bi a am si foo ko mën a amee ak ku la ko mën a yónnee ñëwal si Afia ñu jox la ko dawal ba mu jeex kon nag number bi 3062870 tayo mbete yi 20 20381 ñun nag ñu ngi fi nga xam ne mooy pipeline mos bi opposite am foofu la ñu nekk ak Afia seen jàll jéema